xarit yi lu solution TV solution info mbégte la ñuy am sak euh, altine bu jot rek ci l' émission des émissions ñu fas yéene teew fii rek euh, sekk waxtaan ak alaaji Sanjoogu Meng ci li xew ci penc mi waaye balaa ñuy xuus tey ci suñu waxtaan bi dañuy daal di nuyu nag mboolem internet yu ñuy suivre fi ci biir réew meeg bi ci réew. ziar itam waa Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen euh, ñaanal itam sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke yàlla suñ boobam yàggal ko fi lool moo ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir kër gi te koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp mi ngi noonu dañ koy daal di nuyu moom euh, njoogu tonton njoogu meng maa ngi lay ziar ndax na jamonoy Senghor fi la ko fekk ñu fi jëlee Abdou Diouf fi la ko fekk donc maa ngi koy nuyu moom tonton saa macha allah ma jigéen ni ma fi fekkee la la fi fekkee ni ma fi fekkee lala fi fekkee amul dara lu la ci ump li ma fi fekk fekk na la fi macha allah di dem ba Touba <coughs> nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ak wér di nuyu di sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te ak wér di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi. nuyu nañ sëñ xaadim ne ci kër gaa njaboot ga yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yëpp di nuyu ñi nekk ci xarala gi yëpp alaaji Modou Diouf Abdou Toob Ablaye Diallo nuyu nañ leen eh, <clears throat> di wax ni ñu ngi nuyu Baye Assane Masara tappalekat mais di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà di wax ni eh, li ngay wax noonu amul dara lu la ci rëcc yow waaw parce que boo toogee di nettali xam nga ni loolu yëpp xam nga ko jóob kon defe naa ni bu dee dangay may ba bëgg a bëmax waaye boo xam ni fa nga may bëmax bu ma ñëwee it du ma fa fekk ku dul yow nee nga tuut nga woon Abdou Diouf bokk nga ci ñi ko fi jëlee Abdoulaye Wade moom waxaale wu kanax ndax ñun fi lañu fekk waaw moom mën naa ko d'accord mais ay Diouf ak Senghor moom boobu ñun ay bébé Abdou Diouf mi ngi fi jógee lool 2000 hmm? la Abdoulaye Wade di ñëw mu fàtte lool te yow banaane la mm-hmm. xam nga ni fekk nga fi nguuru Abdou Diouf Diop mag nga nag da ngay mag macha allah. <laughs> mi ngi noonu <laughs> maa ngi ziaraale comme ni nga ko waxee rek moom Mbaye Assane Mesere mi nga xam ne saa su nekk rek moo ñuy soññ ci bile émission nuy waale Omar Boun Khattab Gueye ñoo ngi foofu ci studio beeg Ndeya euh, di wax ne nag tey euh, daañu ànd ak yéen nag ci waxtaan wi. kii di Cheikh coro Mbacké Babacar Fall dalaloon na ko moom itam ñu daal di sekk ab waxtaan bu nga xam ne nii Babacar nag laaj na ko ci di xew fële ca poor ak. lii nga xamante ne ni presse bi nekkee na ko te ñoom ñu jàpp ne dañ leen ni bundu xataal moom nag lam ko ca tontu mooy que ni fas yéene wu ñoo teg euh, fitna kenn dañu bëgg a jàppale ñëpp ngir Sénégal jëm ca kanam daañu ci ñëw ci kanam tuuti tegal leen kàddu yi nga xam ni moom Serigne Cheikh coro Mbacké yëkkati na ko nekk député bu PASTEF Maïmouna Ndour Faye gis nañ ab vidéo boo xamante ne ni ayaat ci ginnaaw la mu dalaloon euh, kii nga xamante ne ni moo jiite réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay jëm nag ci mbirum presse bi mu nekk loo xamante ne ni xam naa ne lu yàgg sonal Maimouna la ndax laaj na ko ci aide yi nga xamante ne ni ak euh, moom lañ leen doon jox nee na daal mu mel ni dafa xeeb liñ leen doon jox par rapport ak RTS nga xam ne de daan na ay subvention ci lu toll ci 30 milliards daañu ci ñëw léegi tegal leen ko ah, li ñuy jeexalee nag mooy Père Bécaye mi nga xam ne ni moom it ci weekend bi yëpp daanaka xale yi jël nañ ko teg ko ci réseaux sociaux yi ndax kàddu yi mu yëkkati woon jëm ci li xew fële ca nga xamante ne nii ki ko jiite diwaali Waly Diouf euh, ba Bodian ñu ni nag 700 euh, personnes yi nga xamante ni nii dañ leen a arrêté moom nag nee na nekk na loo xamante ne nii lu mu lu mu rafetu luwul la ñaawlu na ko ndaxte euh, dafa war a xam ne rek ñooñu nga xam ne dañ leen a dàkk am na si ñoo xam ne bu ñu leen fa jëlee dootuñu am lu ñu fayee location dootuñu am itam lu ñu demee marché nee na daal euh, rupture baax na waaye nag rupture totale nekk na loo xamante ne nii lu warul mën a nekk la kàddu yooyu nga xam ne nii moom Père Bécaye Mbaye yëkkati na ko fële ca Bantamba dañu ko dooree nag comme ni ma leen ko waxee rek moom Cheikh coro Mbacké mi nga xam ne nii Babacar Fall bu RFM dalaloon na ko kàddu yi nga xam ne ni sekk nañ ko ci ab waxtaan du ñu def rek déglu ci aslëf te dellu si. sport moom li ci xew. directeur général bi leeral leeral na ci li ci war muy Waly Diouf Bodian te jàpp naa li mu ci wax Sénégalais yëpp dégg nañ ko loolu moom euh, question ba laaj njëlaat bu dee lu jëm ci journaliste yi ñun amuñu yéene bu ñu xaatal benn groupe de presse ndax ku ci nekk xam ne presse démocratie bi ñu suyee ci réew mi kon ñun buñ leen suuxatul duñ leen rey nag ñoom it am na lu leen war li leen war mooy ñu xam ne du ma ne accompagner gouvernement bi ci lu jaaduwul mooy ni waxee léegi ñu leen lu jaadu mais am na loo xamante ni doonatul nekk métier journalisme kenn mënu koo xam lees ko mën a te ñun dañoo yàgg nekk victime ci presse. ah mais sëñ bi est-ce que yéen vous êtes bien placé maa ngi jégalu de ndax ab sëriñ nga. <laughs> lu ngeen deful ci wàllu ci wàllu euh, amul lu ngeen ci deful. Ah, déedéet pour man Babacar loolu loolu njuumte la. ñun presse moo ñu yàgg tooñ. boo xoolee fi ñu jaar ba ni ñu yegg see fii. bu fekkoon ne dañoo ñëw pour buntu xatal presse bi fii fii fii fii toll du fi toll ak mais su ma juumul li nga xamante ni moo dox diggante gouvernement bi a luñ a luñ mën a yóbbu te fiñ ko yóbbu it su ma juumul seen naataango yi ndax du mën a bi mais patron de presse bi patron de presse yi lañ amal problème ndax li coow li wundu problème nag warul am sëñ bi mais problème war naa am ndax yéen li ngeen jàppe problème ba tax ngeen ne da woote presse ñi am ak ci réew yi ci àdduna bi normal yëpp heure prison la nekk mais duñ ko waxe fii ndax problème fiscalité lu sensible la ci réew impôt moom lu Sénégal yëpp war a fay buñu demee nag bañ ne diw diw dañoo war a fay dañ ko war a waxtaan fi ñu ko war a waxtaanee du ci président de la République ci direction générale impôt et ko war a waxtaane ñu xool nan a ba dañ leen wàññi bu dee dañ koy wax ñu wàññi leen ñu wàññi leen mais di ko yóbbu ndax kaso yi dañ ko tax pour ñu jubbanti ñu jubut seen taxawaay yu fayonte googu léeg-léeg ngeen jéem ci fayu ci koo xam ne tooñu leen loolu tam du ngeen ko seeta Babacar da yow mi wax ak man xam nga ne bu jëloon réew mi jël di ndax li ñu tooñ bëri na lool kon ñun bu fekkee ne dañoo waroon fa yàlla fayul nañu li ñu war mooy ñu boole Sénégal yëpp ñu nekk benn mi ngi noonu kàddu yooyu la euh, laaj ak tontu la alaaji jëm ci euh, Cheikh Thioro Mbacké nee na nag seen yéene nekkul lu dul rek gunge leen waaye am na loo xamante ne nii it de su ko nangu jëm nag ci doxalin yi nga xam ne nii euh, gis nañ ko jamono ji Babacar Fall nag sërëxal na ko ci ay yoo xamante ne nii du ñàkk ni euh, yow it am nga si ni nga ko gisee ñu bàyyi la nga joxe si sa xalaat. waaw sëñ Cheikh Thioro ñi ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm macha allah tontu yi am na solo parce euh, laaj yi. ñëw na waaye tontu yi dikk na ci leeral ci point yi nga xamante ni mooy diggante presse ak impo parce que du diggante press ak état presse bu dee ñoom problème am na ñu ngi ko am ak impo impo nag benn bànqaas la boo xamante ni mooy doxal am réew bu réew di dox dafa fekk ne ña ko dëkkee dañoo nangu la nga xam ni moom la réew ma di sàkku ca seen am-am gannaaw ba ñu amee ba pare la nga xam ni moo leen ca warloo ñu jox ko état état ca loola ca lay fexe dundinu ñooñu réew ma mën a ñoŋ mooy permettre tëli yi di am sécurité ñuy fay fonctionnaires yi mooy permettre santé mooy permettre njàng mooy permettre yeneen ak yeneen ak yeneen état moom kese munut lenn su fekkente ni la warloo ña dëkkee ca réew ma ak ña nga xam ne ñoo wàlliyaan si ngir ñëw samp ay mbir ca réew ma la leen warloog réew ma defuñu ko kon état amul fu muy jëlee lenn loolu mooy impôt dafa am nag ci biir réew mi ñenn ñoo xam ne ñoom dañu taxaw ne ñun dañu am ay micro waaw ñun nag wax dëgg fa yàlla fayuñu te ku ñu laal ñu yuuxu am nañ ay micro tam la dëmm ne la yow danga jóg ngir nasaxal ñu danga jóg ngir jaay ñu doole da nga jóg ngir fitnaal ñu da nga jóg ngir xeex ñu danga nga jóg ngir tëj ñu lii mooy li nga xamante ne bi mooy problème mu patron de presse ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy impôt yi léegi nag dégg nga leen ñuy wax fayantoo fayantoo nag fu mu amee rek tooñ amoon na Babacar Fall utilisé na ne waru leen fay nekk di fayanto kon ñoom nangu nañ ni kon léegi dañ doon tooñ. parce que bu fekkente ni bi tey ñi leen tooñul woon. waaw ah, ñi leen tooñul woon <coughs> ñan ñoo leen tooñul woon. ah loolu la ñan ñoo leen tooñul woon xam nga presse bi eh, dafa nekk presse boo xamante ne dafa am féete ba pare te dafa yàgg féete ak ñam doon féetal am doxalin boo xamante ne bi moom la doon doxaleek ñooña. maanaam ñoo laxasoo woon yi ay goj xam nañ ñu nga xamante ni noonu la ñuy tojee seen bopp jinax waaye bi la yoon loolu mënul ne loolu mooy jafe-jafe presse bi léegi nag presse bi ñoom mooy li ma la wax ci suba defe naa ci jomet mm. ne la jafe-jafe presse bi dañoo xam fi état jëm ñuy anticiper yëf yi mm. parce que fi état jëm mooy noot gi nga xam ni moom la ñuy noot patron de ñoom la ñuy noot journalistes yi nekk ci terrain beeg yenn journalistes yi petit journalistes journalistes yu ndaw yii yëpp genn wàll gi ñenn ñu ci bari amuñu contrat te loolu ministre bi wax na leen ko am na chiffre xam na yëf yi ni muy doxee te loolu état daf ko war a lijjanti te loolu pourtant état avant mu ko doon lijjanti dafa waroon a toog moom état ñi nga xam ni ñoo nekk ci secteur presse ñoo waroon a ñëw indil ko mbir yi ne ko lii lijjantil ñu ko. Mm. mais par contre boo seetee ni secteur ni presse demee da ngay gis ni patron bi du moom dong mooy lekk yëfi xaalis bi mais patron bi dafa am ñeneen ñoo xam ni dañuy nekk ca biir kër ga di ci mos lii mooy li nga xamante ne bi mooy li am ñooñu nag. ñooy ñi nga xamante bi ñoo ànd ak patron bi parce que ñoom ñooy définir kër gi ni mu war a doxee. comprendre euh, est ce que nekkul di kon looloo tax ñii ngay jàpp ne ñoom ñooy mos pourtant ñoom ñoo doon toog di wax ne président balaa mu woon dalal jeune reporter yi dafa waroon dalal patron yi ba pare. waaw ah, président moom dafa xam yoo fi ah. xam na jeune reporter yi. bu leen dégloo dana dégg li nga xamante ni bii moom moo ko war moom la war a lijjanti. parce que jeune reporter ñëwee xam nga lu ñuy wax. Hmm. li wax yëpp problème mu mais patron de yi bu ñëwee xam nga li ñuy wax li ñuy wax yëpp du problème presse mais seen problème la maanaam dafa am kuy lijjanti métier mi am kuy lijjantiku ci métier mi. Mm-hmm. ñii dañoo ñëw ngir lijjantiku te ñi ko jàng nag pour dem defi ko ñooñu dañuy ñëw pour lijjanti métier mi waaw léegi nag fi mu toll nii jafe-jafe yëpp loolu mooy jafe-jafe gi jafe-jafe gi nag wax dëgg fa yàlla nag moo tax ñoom ñu bëgg a xeex xeex bi. boo defee ñu ñu ne wéy presse baa ngi xeex parce que impôt yi ñu leen bëgg a teg fekk ne dañuy daw ñu ne leen seen ñii wutal leen contrat ñii da ngeen leen a war a embaucher ñii de leen versel euh, tëral kii ak yooyu pour bu ñu kiwee am ay retraite ak et cetera yooyu mooy jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi war a ñëw léegi nag ñu bëgg a xeex combat yi buñ ci fesee gars yi jàppale leen ci pour lële du mën a yegg si hmm. waaye loolu dina yegg si allah parce que tamit Euh, tappale baaxut waaw tappale baaxut patron de presse génnaal ak yëpp ay businessman lañ maanaam du ngëm-ngëma leen ci dugal xam nga loolu mooy différence bu patron de presse yu bari ak Sidy Lamine Sidy ah, Lamine li ko dugaloon ah, ci presse mooy am na ci ñenn ñoo xam ne ay journaliste lañu woon kon donc kay ko kay ngëmu ko ah, ci mais par exemple am na lu la mën a dab ci yoon wi de hmm, ay yeneen i mbir hmm. Hmm. xam nga dafa doy waar yeneen mbir mën na laa dal. Mm, mi ngi noonu jërëjëf am na solo moom euh, Maimouna Ndour Faye ci ay at yi ginnaaw xam naa nag euh, li ministre bi yore wàllum communication bi génn bokk na ci li tax ñu réactualiser bi les euh, vidéos moom ak président Diomaye jàkkaarloo woon nañu foofu ca 7TV jëm nag ci wàllu ba tey aide à la presse bi. may mun a nag mu mel nii nee na daal euh, li leen doon séddale noonu daf ko daf ko daf ko xeeb ci ci suñu suñu jàngatee ci ni mu ko gisee ak RTS bi nga xamante ne nii moom daal euh, dafa mel ni daf ko teg gët ñu dem xool yi lañ jotoon na waxtaanee euh, ci jamono yooyu dellusi yow ñun duñu RTS nous ne recevons pas de subvention nga ne ñun 30 jours amuñu droit euh, def euh, activité alors que euh, moment boobu la parti politique yi di def dépense publicitaire même publicité politique bi ñuy tere sax journalistes yu bari ñu ngi nekk di wax naan dañoo war a réformer la la la la loi. non mais am na loo ñambaas de. ay ay on ne reçoit pas di ngeen di jot aide à la presse. aide à la presse. Hmm. doo ci laaj. yelwaan boobu. sarax boobu. da nga ciy jot wala doo ci jot. 15 ah macha allah loolu bari na. 15 millions da nga ko xeeb. dama ko xeeb. waaw ah, mais yaa ngi koy jot. dama ko xeeb mais je disais ça en passant rek. la la la RTS reçoit des de 10 milliards. Ah. on nous balance 700 à partager entre cent deux cent soixante-dix médias damay bañ nga parce que sénégalais bañ a fàttali mais Bassirou c'est la moindre des choses oui mais je dama ko xeeb sax mais comme service public comme sensibilisation c'est la moindre des choses que l'État doit aller plus loin je suis tout à fait d'accord ah, ah. je suis tout à fait d'accord cest dire que yow boo ñëwee doo ñu doo doo xaw mooy jàppale médias yi non cela ne veut pas dire ah yow mi di koy wax kay naroo ñoo naroo jàppale médias mais waxuma ne doole waru leen ko d'ailleurs ci seen programme de campagne y a pour le soutien. mais yow yaa pour pour pour à flot de la presse non mais c'est vrai y a que Idrissa à l'époque y avait des propositions pour le secteur. Non, de la presse lu ñu am doyu la. wax ah, loolu non non non non. mais bu wax yaa rien y a quelque di wax suñu aide à la presse bi. non yow da ngeen ne on reçoit pas j'ai dit da ngeen di jot aide loolu je dis. ay ca mi ngi noonu alaaji euh, MNF noonu lañ ko tuddee je pense mun a nee na daal dafa xeeb 15 euh, millions yi nga xamante ne ni moom dina koy jot wax itam RTS euh, subvention yi leen di defal daanaka plus de 10 milliards ak euh, publicité yee kii ni mel moom daal mel na ne ba léegi daal moo ngi ci fa mu nekkoon jugu fa. waaw Maymuna de man bu ma ko kii woon dama naan Maymuna mi moom sëriñ la wala. ah ci naka. Maymuna am na lu ko yàlla may de déggoo ko li mu ko wax. li mu wax kii. Basirou ah, nee na ko yow boo ñëwee boo ñëwee boo ko bu ngeen ñëwee. <laughs> te boobu Basirou nekkul candidat. Ah, mu ne ko boo ñëwee yow. Hmm. waxut bu ngeen ñëwee de. Mhm. parce que surtout ak maa ngi mën a fay waxoon ne bu ngeen ñëwee bu waa mi ngi def allusion que ni Sonko mooy nekk président mais mu ne ko boo ñëwee. te boobu Basirou. nekkul candidat jege ne recevons pas de subvention. Ah. nga jours amuñu droit. affaire la de ah. waaw man li ngay wax ni sama bàyyiwuma ko woon xel. loolu affaire la de. Uh-huh, uh-huh. waaw parce que boo ñëwee. yow boo ñëwee kon doo xoolaat yëf yi ah léegi nag li am solo. mooy président Diomaye euh, gis nga différence su euh, président Diomaye ak ñii maanaam xam nga Sénégal dañu toll woon foo xam ne. maanaam nit ñi mën nañuy tudd ay milliards di dem maanaam duñ ko faale mais gis bi may mun a bëggee taxañ kii rek wan ko ne ko jàppale wu leen kii ñun amuñu dara ci la ko suluñeel ne ko am na luñ leen di jox mu ni sarax la mu ne ko sarax boobu maanaam loolu ni nga ko déggee mooy le fait que nit ki minimiser li nga xamante ni bii moom nga koy kii te boo ko joxutoon mu mu ñu yor coow li mm. ne li ñu daan jox joxuñu ko mais la fait nga leen ko jox dañ koy doye dal wane ni faalewuñu lii comprendre nga mi ngi mel ni jigéen ju sañse loolu nag caractère jigéen la nga ne ko sa sañse bi dafa naan non lii rek man de maa ngi ko jënd si sax maanaam da koy oyofal wane ni du dara mais bu ko sañsee ba romb la waxoo ko dara naan diw ni mu añaaneem li ma def sama sañse bu baax mais ma romb ko faalewu loolu moom suñ jikko la yaa ngi dégg xam nga loolu mooy li mu def fii loolu la fa def mais li ci am importance xam nga mooy la mm-hmm. mooy le fait que président moom ca jamono jooj dégg nga ko xeebut parce que gis nga bu ñu la dénkee waroo xeeb benn dërëm boo xamante ni bii tey yaa ngi koy yëkkati di ko jox nit mm-hmm. waroo ko xeeb parce que gis nga boo demee ba xeeb ko rek mooy indi ngay dégg ñuy wax naan joxe nañ fële malet def nañ lële def nañ lële di pasar pasaree alal ji maanaam xaalis ki ko xam dëgg dëgg dëgg du ko yàq moo tax ñii ngay gis nii ñuy sànni xaalis dañ koo xamul rek di baatre di tëmbal di def nii di def nii xamuñu ko ah, ñoom ñoo ne ñoom ñooy borom. milliards non non xamuñu ko wallaay amuñu sax yoruñu. Ah. ñàkk a xam moo tax. léegi ñi xamut ñoo leen di topp ci loolu ñi xamut ni yoruñu ba noppi ñuy ñëw di tëmbal xaalis di sànni di def nii di jéem a doya dal xaalis mais ki ko xam dëgg ndax mës nga gis ñi nga xamante ni bi tey ñoo ëpp alal ci àddina bi ñu dégg li ñu ne la ñi ngi sànni xaalis ndax mës nga dégg senegal fii ñi nga xam ne dañ la wax ne la ñii ñooy ñi ëpp xaalis ci Sénégal ñuy wasaare xaalis wala ñu koy foye doo ko gis mm-hmm. xam nga lu tax waaw parce que déjà ñoom xam nañ li xaalis mën ak li xaalis boo xamee li mu mën ak li mu mënut dootu la jombal da xam ne uti la rek dafa am euh, bés euh, sëñ di toog di bind ñu ne ngelaw am fu muy jaar di upp di ëf fooy yi mu jël benn billet sa téeméer xaw ma ca jamono jooju daal di koy fatte bën bën bi waaye ñu ne ko sëñ bi lii xaalis la di mu ne ko lu muy jariñ mu ne ko faj soxla. mu ne ko sama soxla mu ne ko lii ci sama soxla. pour wan la ne la xaalis jariñu lu dul faj soxla. est comprendre nga. maanaam il nga nekk ci foofu di nga xam lan mooy mbirum xaalis faj soxla rek lay jariñ mais am na soxla yoo xamante ni bii mënu koo faj. dafa am leneen loo xamante ni bii eh, moo koy def ak yeneen quoi comprendre nga. léegi nag ñun dañu demoon ba nga xam ne suñu société yi maanaam dañu comme li ngay image li ngay gis nii ñuy sànni xaalis ci mbedd meeg di pasar pasaree di ko def ci seen soirée dañoo demoon ban société bi moo nekkee woon noonu maanaam nga gis nit ñu koy tuddee ay làmb wala ñu koy tuddee dara muy joxe alal joo xamante ni bi alal ju bari jamono jooju foofu la may mun a waxee maanaam li ñuy dépenser ak ñoom li muy li ñuy. leen di jot li ñu leen di jox mhm. comprendre nga. Mhm. maanaam dañuy fawee lële mais ñoom li ñu leen di jox loolu la jàppee miette mais fi mu toll nii tey il suffit que nit ki ñëw respecté yëf yi tegoon yëf yëpp fi mu ko war a teg bu ñu leen joxee 15 millions dinañ xam ni 15 millions yi 15 millions yu am valeur la. Mhm. parce que dañuy xam ni ki koy jël di ko joxe. duñ ko dégg ci yeneen i caaxaan mu fay nekk di pasar pasare yenn yi barki Dembo Ndiaye euh, Wally Seck defe naa ni am na benn soirée bu fi amoon jafe ah waaw soirée ba lan mooy problème bi xaalis la xaalis ay problème bi maanaam du waali moo amoon problème mais ka doon tëgg soirée bi moo am lu mu waroon a fay te fayu ko waaw te loolu yëpp matu 3 millions et pour da ngay gis soirée yi ñuy pasar pasaree li ki léegi xaalis boobu lu tere woon ñu yëkkati ko lijjanti problème ba mais mbir ma yàqu na te terewut euh, Euh, nit ñi da da ngay gis soirée yoo xam ne dañ fay baatre ay nangami million léegi du ngeen poser question ci xaalis yooyu ban façon xaalis la ndax xaalis buy dem ci loxo ndeyjoor ñëw ci loxo càmmooñ la wala buy jóge ci loxo kii dem ci loxo bële léegi nit ki moom la ñuy jouer théâtre kese parce que di ma lu mel noonu bu fekkante ni bii dëggantaan la dëggantaan la noonu la yëf yi di demee som boobu warta mën a yàq soirée. comprendre nga. Mm. donc mënoon na am ku jóg ci penc ca fa mu ne yëkkati sam ba joxe ko. daal ne déet sunu artiste moom du xalaat. mu war ñoo wayal ba noppi ñuy ñëw ay 2 millions di ko yàq ak kii comprendre nga. comprendre mais le fait loolu amut moo lay taxaat nga war a poser question ci xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy teg. Euh, ci table yi en tout cas li am solo mooy defe naa ni moom may mun a moom xam na réponse su président Diomaye ci mbirum aide à la ak affaire yooyu xam na ci ay doxalinam xam na ni euh, la nga xamante ni bi xam na ci gis-gisam ak vision quoi boo xamante ni bi euh, noon lañ cee war a doxalee mm. loolu moom tontu woon na ko te lii mu ko tontu da lay wóor ne la mooy li waa ji est-ce que du looloo tax moom tamit muy wëyal di continuer xeex bi ba tey. xam nga ah, mais xeex bii du xeex. xeexu xeexu xeex bi xeexu xeexu caaxaan la rek. caaxaan tey caaxaan pourtant dañ ko jël lu sérieux de allah. Ah yow yaa jàpp ni dafa caaxaan. lu sérieux lañ ko jël. ah mais buñ ko jëlul woon au sérieux def seen bërki dem ba tëj seen i télé tëj rajo tëj lépp. Hmm. ah. kon sérieux nañ. ah alaaji kan nag nit xam nga ni ci. lu man balaa maa gëm ni sérieux nañ moom liñ defoon dañ koy def un mois ma xam ni sérieux nañ. jërëjëf lii moom xam nga lan la may nuru. <laughs> léeg-léeg gërëwu safoor dañuy dem ay aller retour yu bari ba dajale dépasse nag gërëw na wii laa gërëw. signalé gauche daal bu xaalis bi di waaj a jeex. Ah. ñu lewe la boo dort. <laughs> fekk waxtaan nañ ba pare mi ngi noonu jërëjëf ayca ñu jeexalee ko nag ak Père Bécaye Père Bécaye daal ginnaaw. Euh, Euh, li xew ca port euh, DG ba wax ko fa moom nag euh, am na ay kàddu yu ñu yu mu yëkkati ci mbir mi ne du ñu def rek du dem xooli ko. maande dafa am solo ay bu buñ la jiitalee rek nga ni bëgg a jaay doole loolu yàlla nañu ci yàlla musal doole baaxul gis nañu ci port autonome Dakar ñu dàq fa lu mat 700 pères de famille loolu du du yërmande du lu kenn personnes nga génne leen ci société ba pare dem tëdd sa kër di nelaw yow ak sa jabar ak sa doom. loolu war ngaa xalaat sept cent pères de famille yooyu nit day am yërmande loolu du benn social loolu du social du yërmande président directeur port bii bu bees bii wax leen ci sept cent personnes kenn du leen arrêté loolu rafetul xaw ma loo ciy jublu waaye doo ko ci am waaw loolu rafetul sept cent personnes kenn du leen arrêté am na ci ñoo xamante ne boo leen arrêté du ñu fay lu yaas boo leen arrêté du du ñu du ñu dem marché yooyu yëpp da koy xalaat waaw na ngeen di am social boo jiitee tamit du tee nga am yërmaande nga am social waaye lu ñëw rek nga bëgg rupture totale loolu amul fen ngeen jàppale ñuy sonn ñu lu ñuy jiite waaw jiite du doole a jiite da surtout réew yi réew Afrique yii dafa laaj social bu ci social amul rek du dem ñuy am yërmaande tuuti sept cent personnes ca mi ngi noonu euh, alaaji kadd yooyu daal euh, père Bécaye mbay yëkkati nee na nag euh, bëgg nañu rupture waaye rupture totale moom mënees su la nekk ndaxte 700 personnes yooyu am na ci ñoo xamante ne nii tey jii nii dootu nañ daañu am jafe-jafe fay location am jafe-jafe dem marché yenn yu bëri yi ñu amoon du du dana deñ te daal rafetlu ko daal. Mm. nee daal social daal dafa baax ci réew xam nga eh, Bécaye ni mu waxee eh, teguwul ci xam-xam. ah. dafa bëgg a jël mbir mi yóbbu ko ci yërmande. ci yërmande la ko bëgg a yóbbu. yërmande nag léeg-léeg boo ko toppee mën nga def jëf joo xam ni eh, da nga koy tuddee yërmande mooy li nga gis. mais li nga gisut moo gën a garaaw li nga gis pour expliquer dafa am benn waay bu ñëw fekk benn gaynde guy dàq benn kéwél mu fexe ba gaynde gi jàpput kéwél ki ki bàyyi kéwél gi mu ne sauvé na kéwél bi fekk gaynde gaa ngi yor ay doom yoo xamante ni ay ñu ndaw lañ ñoom la doon wutali pour lu ñu lekk li mu gis mooy sauvé na kéwél gi mais rey na doo doomu gaynde gi parce que fi mu toll nii lan la ñuy lekk parce que ci loolu rek la ñuy dund lii mooy loi bi nga xamante ne bi mooy bi tegu mooy loi nature bi comprendre nga yooyu nag booy loi yi nga xam ni moom la ñuy teg xamu nga dafa jël ñi ñu dàq li mu waroon a njëkk a question mooy lan moo tax ñu dàq leen. bu posé woon question ne lan moo tax ñu dàq leen peut-être dina jot ay explications yu koy leeral ndax 700 personnes parce que le fait que ñu jékki-jékki ne 700 personnes arrêté nañ leen te ñu nekkoon ci bërëb ndax dëgg-dëgg 700 personnes yooyu ña nga doon def lañ war a def bu fekkee ne ña nga fa woon te defuñu li ñu war a def musiba la am na ñoo xamante ni bii sax par yenn saa yi duñ fa ne. Mm-hmm. ba noppi occupé ay postes yoo xamante ni bii ña nga tëdd ca seeni kër. Mm-hmm. Bécaye est-ce que na question yooyu. moom dafa dégg rek yóbbu affaire bi ci santiment waaw ba tax na nit ñi sax mën nañu wax ne 700 personnes yooyu mbaadu nit xel xel yi mën nay xalaat. Mm-hmm. parce que le fait nga jekk-jekk rek ne lii du social. Mm-hmm. maanaam ki lay jox poste dafa am yoo xamante ne bii joxuñu la ko pour dimbali la déedéet dañ la ko jox. pour nga ñu ne ma jigéen am na compétence ñu jox la poste sàngam ñu jox la ko nga dem di liggéey mais joxuñu la ko pour di def ay sociale bu ñu la waxee ñëwal liggéey fii nekkul ni dañ laa jël pour social dañ ne lii ñuy liggéey ma jigéen mii war na mën lii ñu ne ma jigéen ñëwal liggéey du dëkk nga ñëw di liggéey boo ko mënutoon ñu ma jigéen abal yaa ngi dégg kon le fait que nga nekk fi da nga am mérite pour nekk fi mais mbir mi du ay social. sociale la nga yor moom ngay jël di maye di dimbali ña nga xam ne ñoom nga ci war a mën a dimbali ñi nga ci mën a jàppale nga jàppale leen ci du dëkk waaye jël postu réew mi di social loolu ay caaxaan la. ay eh, alaaji kenn du jël post yi di ko joxe ci social. mu naan lool du sociale lu tax Waly Diouf Bodiang war a jël ay post di ko joxe social ma. dañuy jël ay nit ñoo xamante ne nit ñu compétent lañ ñu teg leen ci poste yi nga xam ne moom lañ bu fekkee ne lañ nekk ña ngi koy doxal normal macha allah bu dee duxut dégagé leen jël ñeneen. voilà gis-gisam rek la wax. social bi mu ñëw la moo baaxul <laughs> social. war naa wax social du social. mel ni nit ñi dañuy jël ci post yi. de pour social dàq leen ba pare dem tëdd sa kër yaa sa jabar. Ah. léegi xam nga lu tax muy nelaw. <laughs> ki leen dàq xam na li tax mu dàq leen comprendre ki leen dàq. <laughs> xam na li tax mu dàq leen. li tax mu arrêté leen xam na ko parce que arrêté sax lañ wax dañ wax ne dañ leen a arrêté. neen hmm. daal ni ñu bëgg a doxalee réew mi moom. ah kañ réew mi dañ ko war a doxal rupture totale mënu fi am. réew mi mu ne lan mënta ne. rupture totale. rupture totale waaw parce que bëggut mu ne dafa bëggut mu ne rek. parce que rupture totale euh, xam naa peut-être arrangé ko parce que rupture totale nag moo fi am parce que am na yu bari yoo xamante ni biir réew mi euh, dafa jàddoon koñ quoi dafa am yu bari yu jàdd koñ yoo xamante ni bii. gis nga moo tax gis nga yuux yi ngay dégg di yëpp booy boo nga yëg rek ne ay jafe-jafe la woon ci réew mi lii moo nekkoon charge yi nga xam ni moom la réew bi gàddu woon. ñu naan du social. père Bécaye na la mere de. père bu may mere mais xam na ni lii muy wax nii di di ñëw ci ay social. ñu ay waxi social quand même nag. moom ñi mu jël fee ci plateau yi ñuy liggéey ñooñu social daf daf leen jël pour social. am na se saa yu ñëw am na ñu koy tàllal ne ko dimbali ñu jàppale ma père defal nii na leen jël dugal leen ci rajo ba tax social ci ci kiyam boobu chaîne am boobu maanaam social mooy que ni koo jël mu commencé liggéey xam nga wut na fa mu dëkk waaw léegi li ma ko bëgg a wax war a côté boobu lay léegi noonu loolu yëpp nag ñu bëgg leen ko ko bëgg leen ko xaj mais ñooñu moom est-ce que demande nañ ni ndax ñii ñi ngi doon xëy si wala xëy si wuñ est-ce que loolu laaj na ko <laughs> doo jékki-jékki rek toog ci sa plateau rek naan non lii du social jëbb affaire yi ci ay santiment ay kii mbir mi du ay sentiment dañ leen a fal pour ñu defar du dëkk boo falee ay nit pour ñu defar ñu tàmbalee defar da nga leen di toog seetaan leen. d'accord parce que ñi fi nekkoon dañ doon rajaxe di dem boo falee ay nit nag ñuy defar da nga leen di déglu bàyyi leen ñu defar waaw la fait que moom est-ce que gis warutoon a gisee beneen côté ba. daal ne mais catastrophe lii catastrophe la 700 personnes nga daal di wax ne kon de ñii dañ doon caaxaane mbir mi déggut fi RTS luñ fi wax. waaw point boo dem am na loo xamante ni moom lañ fa gars yi ñu war fee jóge di signaler ay nit di def lu leen neex ah ba ñoom ñi est-ce que moom sax takkaluñ ko ci médailles ay médailles ak lu ne ñu takk ci koy takkal ay nit. di def lu leen neex Macky Sall jël médaille yi caaxaane ko ba médaille yi fi mu doon kenn bëggatul sax ñu takkal ci. Ah, ku ko romb mu takkal la médaille comprendre nga jaxase lépp. mu ñëw fi naan lii du social. père Bakay na la mere nag. Ah, tàggat tool kii moom xam naa fu ngeen ah. dajee na la ne. alal xam na ma foo ko teg. xam na li ma ko dëgg la. <laughs> ay ci li bàyyi la parce lii du social. macha allah waa di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di joxante di daje beneen yoon incha allah rabbi beneen altine ci kàttan borom. incha allah yal nañu yàlla may fekkee ak tal eh, di leen eh, jaajëfal eh, yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon toog di ñu bàyyi xel jaajëfal itam Alaaji Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.